dal leen na jàmm ci tas info aboneel ngir dara bañ a di dal leen ak jàmm révélation yu bes tàq la kii nga xamante ni moo di Aliou ndaw moom mi fi nekkoon lii di procureur naka noonu ki jiite woon lii di CREI moom moom moo ko xam le ci lu jëm ci mbir yi kii di Ousmane Sonko ak ki nga xamante moo di Adji Sarr moom moomee ci ndaje mi nga xamante nii ñii di waa F24 doon nañ ko amal fële ci place de la nation moom moomee ci la xamle kàddu yi ci moom mii di Ousmane Sonko de bu moytuwul la ko nar euh, dal moo di li nga xam ne moo di ordonnance de prise de corps moo di bu ordonnance boo xam te ni dinañ ko jox ndaw yi takk der ngir fu ko mën di gis ci réew mi daal di ko mën di jël indiwaat ko fee nga xam te ni moo di ci tribunal ngir jugement boobu nga xam te ni moo war a am moom moomu di Ousmane Sonko ci digganteem ak ki nga xamante ni moo di Adji saar te war a am le 16 bii nga xamante ni ca la nu jëm loole nag mbaa du indi lii di fitna ci réew mi loolee nag fi ne nii mooy laaj bi ndaxte jeunes yu bëri bëri jamono ji ña nga fële ci buntu Ousmane Sonko kër Ousmane Sonko ci naan kat dañ koy protéger ngir bu ko kenn daal di jël wala di ko jéema war a jël si ngir yóbbu ko fële ci tribunal ndax loolu li ko waral moo di moom Ousmane Sonko moo jot na def déclaration ci di wax naan justice bi de moom gëmu leen moo taxit dootul dem ci benn ndaje moo xam te ne woote nañ ko ko maanaam dootul wuyooti benn yoon loolee nag mbaa du indi beneen euh, tournant wala une deuxième saison ci li ngeen moo di xeex yi fi doon am mu di li amoon ci deux mille vingt et un mbaa loolu duñ xool ba mu dikkaat ni rénkum ci suñ kaw lu am ba des moo di ni li nga xam ne moo di yoon wi jëm fële ca Ziguinchor la ko dalee fële ca Bignona foofa yëpp dañ ko barricadé ña ko def moo di ay jeunes yoo xamante ne lan fa teg moo de ay tronc d'arbre yoo xamante ne ngir dugg wala accéder fële ca Ziguinchor jamono ji coono yu rëy rëy la ndaxte foofu fépp la am ñoo xamante ne dañoo jukk ngir baare yoon yooyu yëpp mbaa du indiwaat leneen ci mbir yooyu nga xamante ni mooy li war a dox diggante Ousmane Sonko ak ki nga moo di kii di Adji Sarr waaye daal la man am moo di li xew li am wala ci kanam raw li gët